kalamay kocc ñu pàcc pàcc ñu ci fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bélier yi na la wax ci wàllu amul sant ak wér-gu-yaram santé boobu lañ koy dooree yéen bélier yi tey bu dee da ngeen bëgg am wér-gu-yaram dee leen teel a yeewu di teel nelaw loolu boo leen ko defee daal di ngeen am li nga xam ne moom mooy wër gi yaram ci wàllu liggéey it ngeen gis ne yéen seen jëm bopp énergie bi nga xam ne yaa ngeen koy joxe loolu nekk na loo xam ne incha allah rabbi dina leen mën a jàppale ba erreur yi nga xam ne amoon ngeen ko dans le passé loolee di nekk li nga xam ne loolee ni lay doon te it nekk bés boo xam ne waxtaan wu am solo dina dox seen diggante ak ki ngeen di bëgganteel muy am li ñu wax maanaam ay désir mutuel loolee di nekk loo xam ne lu am solo lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi mu ne ñoom dangeen nekk nii ñi nga xam ne rares fois yi nga xam ne jafe-jafe ak xuloo day am seen diggante nee na waxtaan yi nga xam ne da ngeen ciy def na ngeen ko si jëlee ba lépp li nga xam ne euh, lépp li nga xam ne daal euh, solution la boo xam ne trouvé ngeen ko si dafay nekk loo xam ne lu gën lay doon gis ne it ci wàllu wér gi yaram du am benn jafe-jafe wala gàllankoor bi si nekk xanaa nag nee na ngeen moytu tuuti stress rek euh, ci wàllu travail également explication yi nga xam ne da ngeen koy am ci seen diggante yéen ak ki nga xam ne mooy seen supérieur hiérarchique nee na loolee nekk na loo xam ne dangeen ko wax loo xam ne dina ko mën a dégg ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi wàllu wér-gu-yaram amul jafe-jafe benn gàllankoor amu si ci wàllu professionnel également seen savoir fair nekk na loo xam ne boo leen ko tegee ci seen wàllu liggéey di ngeen ci am ndam vie sentimentale yi doon loo xam ne amul benn gàllankoor wala jafe-jafe li ci war rek mooy toog waxtaan bañ a di nëbb loo xam ne xamul leen fa muy jëm ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wàllu wër gu ci jafe-jafe ci wàllu der peau dafay nekk loo xam ne daf ciy fës mun na nekk wàllu ndoxum siti wala mu nekk ay dermatose yu demee noonee hmm. loolu doon na loo xam ne nañ ci bàyyi xel waaw ñu dem xool ki nga xam ne mooy dermatologue wala boog ñu xool koo xam ne spécialiste la ci lépp lu jëm ci wàllum der euh, travail bi ay promotion ay bénéfice ay nouvelle euh, nouvelle poste

Ah. nee na boo leen amee envie de prendre ko. yoo xam nga bu baax yow si la ma ne. waaw xam naa ko moo tax euh, dem bu nga reprendre sport bi nag. Eh, waaw après ñu ànd sax. waaw dañuy dem moom man sama sama sortie mi sama biir waaw semaine prochaine ci wàllu travail mu ne euh, personne irremplaçable loolu moom ku foog ne yow kese yaa fi ne ah. kenn mun la remplacer kooku mu amul xel. Ah, waaw waaw yàlla rek moom lañ mënul remplacer donc kon ci biir loolu nañ ci bàyyi xel baax a baax nee na def leen li nga war a def rek li ci des ngeen bàyyi keneen ñëw yeggale ko. Mhm. ñu jàll nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne malentendu ñàkk déggoo ñàkk bokk gis-gis réeroo bu tar dox sa diggante ak ki nga xam ne da ngeen di bëggante li gën daal mooy jàmm moo gën fii moo gën fa ngeen jëm ci wàllu santé nee na na ngeen ménager seen estomac bi de du lekk yenn lekk yoo xam ne dafa bëri ay ay ay dafa am piment wala yu demee ah, noonu saf waaw yooyu dafay nekk loo xam ne daf lay daf leen di sonal su le plan professionnel dafa ne boo leen defee travail en équipe dafay nekk loo xam ne wax dëgg yàlla yow de ci bénéficier woon ndax li waral bénéfice mooy da ngay

di nga am li nga xam ne yaa ngi ko bëgg sur le plan professionnel loolee di nekk loo xam ne ngënal lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne di ngeen am seen vie amoureuse wax dëgg neex yàlla fan yi moom dafa tarkal am na sérénité goo xam ne nekk na si amul benn gàllankoor wala jafe-jafe goo xam ne fës na ci lool law la ca waaw tarkal ci wàllu santé amul problème dem leen def sport da leen euh, di tirer corde ak yooyu dafay nekk loo xam lu gën lay doon sur le plan professionnel ay susceptibilité yooyu moom fii amu fi place. Hmm. boo ko defee sur le plan professionnel lu la naqari la nga ko fay jëlee kon bu yeboo ngeen arrêté ko seen susceptibilité boobu ngeen koy yemale seen kër wala ngeen xam ah ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaires yi jafe-jafe munul am ci wàllu euh, santé mais bu fekkee da ngeen def yenn activité yu dëgër yi day am ay douleurs musculaires yoo xam ne dangeen ngeen ko ressentir ci wàllu liggéey it na ngeen jéem a gën a concentré wu ci seen tâche professionnelle yi nga xam ne dañ leen ko jox boo leen ko defee da ngeen ci am ndam amul gàllankoor su le plan santimental li gën rek mooy yéen seen jëm bopp li ngeen di dox na ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk ak fa ngeen jëm ñu jàll ci ñett si ñu mujj yi àll di ko doore par Capricorne yi ci walu santé amul problème particulier xana li ngeen mën a defee ngeen am repas équilibré xol sen lek ni ngeen koy doxale sur le plan professionnel sen qualité exceptionnelle yi nga xamné am ngeen ko dina leen jàppale wax dëgg neex yalla ba confiance bi ñu am ci yéen ngeen mun ko doxal sur le plan sentimental wax dëgg neex yalla amul ben problème bo xamné taxaw na si mbir yaa ngi dawal normalement mi ngi dox complètement comme ni nga xamné ne lañ koy bëggé ñu jall ci ñi nga xamné ñom ñoy ñooy yi jarul ngeen ni anticiper seen réaction ou sen conjoint bo boo leen defee njombe jarul ngeen ni ñëw bëgg accéléré di jéem a ibbi waxtaan bi baaxul la yéen kay xaar leen rek njombe moom boo ko defee xaaral rek bu ñu la jàppee ngay téléphoné wala ñu jàppale ci message wala ñu am fu ñu la gis ak yooyu jarul ngay jëm ki defal naa comme ni la laara jekkoo kan di nan la may jekkoo kii daf maa mën a jekku daf xamal dara waaye yow loolu daal nekk na loo xam ne àll nañ ci bàyyi àll vert jàpp na la da nga gumba de yow waaye ah gumba nga de soo bëdi yàqu na de ah waaye maa pourtant man CV su ko solee du gis. waaw xoolal saa yi sa saa da nga bàyyi sama way mu ci walu santé na nga garder sa équilibre alimentaire nga jéem xol xool nan ngay mën garder sa forme légui nag bu fekké né yow sa jëmm sur le plan prochain dafa bëri ay ndëgg sërëx yo xamné day lalu ci sa yoon sax tout le temps nee na na nga def attention bu baax di xol fi nga xamné fa ngay jaar. dëgg la jërëjëf euh, Seydina borom ñaari.